di Walf Quotidien xëy fësale leneen tamit loo xam ne yéen kaay gi Walf Quotidien xëy na ko fësal te mooy sitting bi nga xam ni euh, groupe Walfadjri doon nañ ko mooy ñu euh, euh, dafa wane ne koy tuumal defu ko yéen kaay gi moo xëy fësal lu ni mel Amadou Ba ma ngay wane doolem fële ci diwaanu Kaffrine lancement phase nationale si fële ci nawetaan mbooloo mu bëri ñoom génn daal di koy teer tasagal ko yéen kaay gi ne neexul ba Benno Bokk Yaakaar mi ngi ci yéenekaay gii di Walf Quotidien yéenekaay bi di Sud Quotidien waaye yéenekaay gii di Sud Quotidien dafa xëyee amal ab taxaw seetlu jëmale ko ci tolluwaay suñu réew mi la ci wàllu démocratie ak ci wàllu droit gi eh, eh, eh, di membre gi fi ne te sàmmantik ak yelleefu doomu aadama bañ fel ci fel lenn ci émission bi objection xam le ne tey jii bu ñu demee ba nga xam ne Sénégal droit bi dafay wàññeeku dëgg-dëgg Ismaïla état de droit dafay wàññeeku dëgg-dëgg moom Ismaïla Madior Ismaïla Madior Fall ak kii seen loxo génn ci mi bi waaw bi dee yéenekaay gii di yor yor dafa xëy dellu soir ci tripotage bi nga xam ne ñu ngi koy indi jëmale ci code électoral bi lee daanaka code électoral bi waxtu wu nekk rek taxawaayu ñett ñi mm-hmm. muy ku ci mel ne Macky Sall Karim Wade kii di Khalifa Sall noonu la ko yéenekaay gi xëy fësale leneen itamit loo xam ne yéenekaay gi xëy na ko fësal Abdoulaye ah, te mooy frappe bi nga xam ne jamono ji ngi samp laaj a ak Cheikh Bara Ndiaye seen i du leen gis lan la moo xew mhm. noonu la ko yéenekaay yi di yor yor dafa xëy dellu ci candidature coalition Benno euh, mhm. mu a ñu ne jamono ji euh, mbir yi bu doon course la mënees ñu wax ne am na ay ay jéego yoo xam ne rawee na ko ña nga xam ne ñoom lay kursal noonu la ko yéene kaay gi xëy fësalee euh, moom président Macky Sall nag na dina ñibbi si dikk àllarba àllarba nag a doon ne jamono euh, nekkul nag ci tànk yi deltu ginnaaw benn yoon su fekkee fekkente euh, tànn ko tànn ko kon mhm. moom daal la mu bëgg mooy bu fekkente ne président Macky tànn keneen ku dul moom foofu mu wax ko ci yan critère la ko basé noonu la ko yéene kay Ba moom ma ngay wane dooleem fële ci diwaanu euh, di direct news ne mbooloo mu bari ñoo ko teextu démb fële ci samedi yi ñu génn fële ci mhm. diwaanu Kaffrine euh, Amadou Ba daanaka daal ma ngay xalal yoon wi taw ñi yéene gi moo xëy fës lu ni mel yéene kaay gi naan ne neexul ba neexul Amadou Ba fu mu toll nii mu ngi wane ne mooy candidat yaakaar critique lam ñu jukkil euh, critique ne lu jëm ci ubbi teeg euh, phase nationale mouvement euh, gii di peuple na neexul ba neexul waaye bu fekkente ne ñu ngi wër ab candidat dig koo xam ne war naa président Macky Sall Abdoulaye Abdoulaye Daouda Diallo la moom mooy candidat bi nga xam mooy candidat authentique ndax bokk na si nga xam ni ñoo ànd ak président Macky fas far taf créé mm-hmm. parti bii di APR mm-hmm. te depuis ba tey Amadou Ba Podor ga nga xam ne foofu la fekk baax maanaam Fuuta ga fekk baax daanaka moom rek nga fay moom moom moo fay dégg wiw noonu la xam ne Amadou Ba mooy seen candidat ci élection présidentielle yi di ñëw noonu la ko yéene gi xëy fesal ci jamono ji leen naatango Abdoulaye Diouf Sarr ñoom it ñu ngay daje di wane Abdoulaye Diouf Sarr mooy waaja mm-hmm. Aly Ngouille Ndiaye moom ma ngay wane boppam di wane ne moom bu fekkente ne du moom faw wax ko critères yi war a tax euh, du moom noonu la ko yéen kay xëy fësale euh, ci jamono ji les Jean-Paul ngay xam ne su fekkente ne président Macky Sall tànn ak ñoom seen gis mhm. euh, daal tàmbale ne ñu ngi nekk di négocier candidat yi la mu bëgg daal mooy mhm. ab déggoo am su ko defee élection présidentielle yi di ñëw ñu mën cee cee dem ak candidat boo xam ne ñu ngi ja maanaam ñu la ko yéene kaay gi euh, fësale ndax jamono moom lañ amoon seen yaakaar di Ousmane Sonko fu mu toll nii nañ ko mm. yéene kon ñu ngi jëm ci élection yoo xam ne nii boobu daal ay tokaar ñoo si nar bokk nañ la ko yéen a kaay gii di 24 heures xëy fësal yéen a kaay bi di le mandat a kaay gii di le mandat ne Bougane yi ko ay di ndaw ñi fu mu toll duñu lànk dañoo lànk ne euh, duñu wat jël seen carte di ko watal ay nit ñoo xam daanaka ay màgget la ñu xabidaas mm-hmm. euh, muy ku ci mel ni Khalifa Ababacar Sall ak kii di Karim Meïssa Wade ay ndaw ay nit la ñoo xam ne ni xale yi am 24 ans xamuñu leen noonu ko yéen a kaay gii di le mandat xëy fësal yéen a kaay bi di réew mi continue euh, waaw yéen a kaay gii di réew mi dafa xëy dellu siwaat yi soble bi gii ne li ko xaw a jaaxal mooy Euh, muy ab muy ab muy muy Aly Ngouille Ndiaye ji nga xam ne ñu wàllu ko wàllu wàllu mbay mi ak kii di Abdou Karim Fofana mhm. kenn ku ci ne daanaka euh, la mu ciy joxe ci ay chiffres mhm. yéen gi daal ne neen daal ñaari ministres yi daal kenn xamul la ñuy feccee noonu la ko yéen kaay gii di réew mi xëy fësale euh, yéen kaay di Le Soleil yéen gii di Le Soleil xëy dellu ci projet bi nga xam ne état bu Sénégal amoon nañ ko ngir fexe ba lu jëm ci kër ju di leen ko yàlla ci internet maanaam ñu ko yàlla ci biir ordinateur yi lée mhm. ba fu waay mën a tollal bu bëggee carte carte xam ne mën ko faa récupérer mhm. projet boobu nag ñu ko ko duppee nekkal fan la ci état bi toll tax na yéen kaay kii xëy amal ab taxaw amal ab taxaw seetlu fële ci diwaanu Kaolack mhm. Bignona Kolda Tambacounda Diourbel Louga Touba Matam ba ji fële ci diwaanu Ziguinchor euh, yéen kaay bi euh, gi di le quotidien ne euh, Sénégal ma ngay waajal kon guerre gi fële ci Niger armée bi nag ni ji laa ñu fas woote ab rassemblement nu ne la ko yéen gi xëy fësale fële ci diwaanu yéen kaay bi di stade. stade yéen kaay ne Sadio Mané gàddu na coupe arabe ak euh, équipe bam bu bees bi nga xam ne moom foofu foofu la ngar raaju euh, bi nag di fukk ak ñetteelu trophée boo xam ne euh, Sadio Mané gàddu na ko ci carrière am. nangoog suñu lamb lam ñu dégg. yéen kaay gi suñu lamb dañu ngi jëm ci weeru novembre boo xam ne nii novembre weeru novembre bu nar a sàjj lay doon. Mhm. Modou Lo Ama Baldé ci lañ ci la ñuy sëgg bëree Tapha Tine ak Ama ak Ama Sène tamit daañu ci fas yéene bëree yéen kaay daal lamb ji daal dana sàjj si weeru novembre mu ngi ci yéen kaay gi di suñu lamb. nangoog mangoog suñu lamb lañ koy jeexal